ñu ngi lay ñaanal yàlla euh, li nga wax leer na lool euh, ci kanamu ñun ñi fi toog yépp kon nag imaam yi ak olamaaw yi alaaji Moustapha Guèye nekk président di imaam ak olamaaw yi ànd ak juróomi membre yi ñoo xam ne ñooy bureau exécutif bokk ci ñi nga xam ne ñooy dogal lu bari ci doxalin wi ak ci ñi nga xamee ni moom lañuy ñuy xalaatee euh, ni ko imaam waxee sama mbokk imaam yi wax ko histoire la bu yàgg na ci àddina waaye téerewul àddina di dox musul yàqul ñenn lu mooy ñeñ ca alagoon yàlla alag leen rey leen jeexal xeet wa waaye jeexutoon ñëpp bàyyi leen àddina di dox àddina yëpp di doxee ci noonu waaye ngànk ko nii di coow di wax am na leen loo nar am leen loo nar ci te ñemee koo génnee nga ne naa am parox la ma duggeeku fii loolu rek la waaye loolu nag eh, gannaaw nit ñi am na ñuy nopp am na ñuy xel yu ñuy déggee eh, ku leen waxal ku wax jottali leen wax leen li xew danañ mën a dégg ñi bëgg a dégg yëpp danañu dégg ndax kon sa taxawaay bii taxawaay la bu am na solo lool nag am na solo lool ci réew mi ni muy doxee yow yàlla teg yàlla teg lu ci kanam réew mi nga koy doxal nga am xalaat yu ma sëkk yoo xam ne yii mooy ne njëriñu réew mi rek lay doxal te lu yàq réew mi soxlu ko du ci aada du ci diini ji kon nag ñi nga xam ne diini noonu la doon doxee balaa ngaa ñëw ci réew mi ña ko doon doxal nga ñëw teg sa tànk ci loolu di ko doxal lu gën a rafet ca loola ñu naan la na nga def nii nga def na nga ne diini du ma ci laal dara duma ci soppi dara dama koy doxal ñi nga xam ne noonu la doon doxee kon dañ ciy gërëm bu baax président de la république dañ ciy gërëm bu baax di la ñaan bu baax a baax